damay njiitu presse xam naa ne moo tax bu ma ñëwee aide à la presse ma ne aide au patron de presse parce que am na nu muy demee ña nga xam ne ñooy ci ginnaaw tey yore liggéey bi yëpp amaana mën na am du ñu se du ñu teg sax bët ci la nga xam ne moom lay lañuy ñuy dimbalee presse bi kon nañuy wax aide au patron de presse donc moo tax je demande à travers Mously TV sax de rectifier souvent de dire aide au patron de presse parce que am ñu nekk ci biir duñ ko du mais xam nga tey média lu tax dundatuñu boo dee xool soxna si gis nga rajo yi ak télé ci géej gi di ñëw te tey dafa saturé telle sorte que pour que benn organe de presse dindal wala mu mën a fay ci ñam muy employé sax lu difficile la parce que non seulement que la publicité n'est pas réglementée au Sénégal mais aussi la da ngay gis ne fi mu nekk nii avec la libéralisation ndax bul fàtte article 10 et de la constitution 10 dafa wax ne chaque citoyen est libre d'exprimer ses points 11 mu ne ku nekk kat am na sañ-sañ créer sa organe de presse gannaaw bi nga respecter le cahier de charge kon nga gis ne mbir mi dafay gën a yokk te on est dans le monde de la communication tey médias yi dundatuñu ils ne font que survivre xaw ma ndax di nga ma dégg ndax kii jooy di siimee kenn du ko ñaan ñeex kon pour nga fay ñi nga xam ne ñoom nga yoreel wala pour nga euh, am sax loo leen di jox astuut lu difficile la extrêmement difficile tey soxna si dama waxoon waaji rek ba ma ñëwee di ma indil ay euh, ay norme luy tele ay kii ba comme facturage ak kii mën a ko tegal ma lii fële mu ne ma lu ñuy def ma ne nañ indi système bawol bawol tout te teew mu nekk nii ñu toll nii nii nii norme télé ak rajo la nga xam ne moom lañ doon war ak la doon am mënatul a am te ci kanam la jëm kon ni ñuy def ba dund ni ñuy def ba kii xam nga sëñ Babacar Sy dafa wax ne sama dund gi yëpp utiliser wu ma sama ko wilaaye ñu ne ko loo utiliser mu ne stratégie kon nga gis ne ñoom itam stratégie la ñu mën a utiliser pour que ñu mën a dund suñ demee ba publicité yi ngay ñu koy dugal ci biir réseaux sociaux parce que leur cible maintenant ce sont les réseaux ndax xam nañ ne tey télé ak rajo lii di dugg ci biir réseaux sociaux yi di xool surtout les sites ak yeneen kii moom moo ëpp léegi moo tax ils connaissent tellement leur cible waaw papier bi boo moytuwul léegi dafay day daanu xam nga presse à papier sax lu tax tey soo soxna si jëlal programme journal buy jar 100 francs <laughs> nan lay dundalee wala nan lay fayee journaliste ya fa nekk ci journal buy jël 100 francs c'est parce que am na il y a quelque chose derrière et li nekk ci gannaaw foofu nag yow xamuloo ko man xawuma ko parce que man imaginez nga jaay 10 000 exemplaires wala 100 000 exemplaires bu nekk 100 francs ñaata la <laughs> te gisuloo fii kuy jaay presque 7000 wala 10 000 exemplaires wala 20 000 exemplaires yaakaaruma ko de ndax su ma juumul il y a plus de 26 organes yo euh, presse boo xam ne presse euh, papier boobu ngay wax ñoom ñooy génn ay quotidiens yuy génn chaque jour. tu te poses la question de savoir nii nan la ñuy def avec un journal qui coûte 100 francs même 200 francs peut-être que soo jëloon ay yeneen journaux yi nga xam te ne nii bon journaux euh, euh, état bi la il y a les ama yoo xam dañuy abonné loolu par la force la ñooñu mën nañ cee génn mais ñeneen ñi comment ils font tey pour s'en sortir tu vois-t-il di nga attention ils se cachent derrière c'est là-bas certains nag maintenant li ñu wax loo xam ne kenn du ko wax ci kaw moo tax ngay dégg ay blanchiment d'argent moo tax ngay dégg ay argent sale man xaalis kay musul salte xanaa kay anim ba anam bañ ko jotee mooy salte <laughs> waaye xanaa musul salte kon donc lu difficile lay doon du côté de l'information soo xoolee l'aspect commercial a tué l'information gis nga li nga xam ne mooy wàllu koppar la tey dafa rey information gis nga boo xoolee par exemple réseaux sociaux yi wala yeneen kii yi nga xam da dangay dangay gis kuy wax lu rëy wala koo xam ne la muy wax sax amul benn benn bopp amul genn mais aspect commercial wala mu génnee information boo xamante ne nii da lay leer ne lii du dëgg parce que ndax lan il y a l'aspect commercial qui se cache derrière euh, euh, loxo bu set nag am na loxo bu tilim am na am na ñuy sellal mais am na si ñeneen ñoo xam tey imaginer par exemple quelqu'un boo xam ne yow li ngay am sax moom moo ëpp li muy am mais mu ngi daw ay 4 di dund si dans le luxe te leer na ne boo calculer salaire am kii waru koo mën a am kon bu ñu waxee OFNAC bi ñu ma doon wax euh, office anticorruption ma ne ah kon de bu leen ko yemale ci policier bu ngeen duggoon ci biir gars yi parce que su may wax gars yi tey ci presse la ñuy wax moo tax souvent ñu wax critique euh, kenn di nga déglu sax rajo wala télé kenn dugg critiquer leen ñu coppe ko ma ne déet nañuy def autocritique il faut qu'on soit parce que ñun ñëpp ci média la ñu nekk ki nga xamante ne yow da ngay critiquer waa tribunal di critiquer gendarmerie di critiquer police waaye yow tamit kay nangul ku lay critique ndax les dérives qui sont euh, au niveau de la presse dafa bëri de tellement que ne pour nga waxtaanee ko boo moytul sax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ŋàbb la parce que tey beaucoup ont perdu leur intellectuelle honnêteté tey jub ak honnête moo tax gis nga sëñ Abdoulaye daana wax nit foo fen ba am fa ñaar téeméer boo fa waxoon dëgg am fa junni tey njub ak honnêteté lu tumuranke la si jamono bi ñu nekk moo tax léegi lan nga gis jamonoy dóor la moo tax la ma waxoon waa ji day dellusiwaat mu ne ma waa sëriñ di ay dóorkat lañ waaye man ko ñi koy ñi di seet sëriñ yi tamit léegi léegi ay dóorkat lañ de mu ne waaw man ko léegi ma laaj la ki nga xam ne dafay ñaanlu dafa toog ci martu ki koy seeti yore marto bu ñu ko fëggantee luy xew ah pënd dafay bëri kon dóor boobu ngay wax te soxna si dinaa la wax leen dem na si jamono tuuti ci kanam képp ku dul dóor boo matul xiif rey la loolu man maa la ko wax tey parce que loolu la gars yi jël léegi muy arme wu dóorkat la dóor yi door yi à ah, tous les niveaux nag tous les niveaux si si dóor boobu dafa am. définition de l'intellectuel mooy lan c'est celui qui prend parti tous les jours dans les affaires de la cité et du monde au nom d'une responsabilité qu'il s'attribue d'éclairer l'action de ses concitoyens des limière de son savoir et de sa conscience kooku mooy intellectuel ku dul moom doo intellectuel et maintenant dérive yooyu ngay wax noonu ak euh, kii xam nga dafa am diplôme compétence ak worma am na fa nga xam ne diplôme am na fa waaye compétence amu fa am na fa nga xam ne compétence am na fa waaye diplôme amu fa worma mu nga fa am na fa nga xam ne amul diplôme amul compétence waaye worma mu nga fa dafay muur lële tey jii soo xoolee tey si li nga ma laaj léegi nii ci wàllu déri kii noonu ko waxaatee les fruits de l'intellectuel xam nga <laughs> moo tax Serigne Cheikh daana wax moo mootu leen intellectuel ñoo gën a dangereux <laughs> dañuy réeral nit ndax nit bala nga koy gën a mën a réeral dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay jàng te ñu dangereux lañ nag Serigne Cheikh Ahmed Tidiane daana ko wax na ñu dangereux lañu moo tax quand tu me demandes les fruits de l'intellect et pourquoi je damay euh, leeral lu tax ma wax loolu nee na dafa mës a dem dëkkam bu ñuy wax Syrie mu fekk fa gane fi benn xaritam bu fa nekkoon mu ñëw waa ji di julli guddeeg bëccëg day julli suba ak ngoon kurus gi du dakk guddi gi nay naafi la nee na mu toogaat ñaari at dem ganisi ko waaye xiim benn butéelu si benn kiiwu sàngara kaasu sàngara jox ko sëriñ Cheikh ne ko am mu ne ko lii nag mun ne ko naanal dara nekku ci sëriñ Cheikh ne ko miinuma ko mu ne ko ah lu tax mu ne ko wax dëgg yàlla miinuma ko nee na ñemewu ma fa nekk naan ko dafa xaraam parce que su ma ko waxee dafa ay innal xamra wala may sax di ko dugal ci ay addis wala di ko dugal ci ay aaya nee na moo ma dàq jàng aaya bu ma indi mën na indi bu ko raw addis bu indi mën na indi bu ko raw ndax dafa jàng te moo tax muy wax intellectuel bala mooy gën a réeral nit ñëpp ñëpp dafay jàng d'abord kon pour gàttal wax ji dama ko ne miinuma ko léegi nag fruit intellectuel boobu parce que xam nga lu tax système bi moo yàqu dañoo nekk ci jamono boo xamante ne ni système bi dafa yàqu loolu moom moo tax c'est-à-dire que c'est la société qui s'est dégradée et quand la société se dégrade dafay entraîne toujours la dégradation des cultures et des mœurs donc il n'est pas facile aujourd'hui de solutionner cette dérive là ak problème yi nga xam ne mu ngi am ci àdduna bi ak ci fépp mu mënti doon nag il des problèmes peut-être que nag am na kuy seetaan mu ne mu ne ma avec des hypothèses tout est possible je suis d'accord avec lui mais il faut prendre toujours l'hypothèse la plus vraisemblable kii détient la solution ñun ñoo yore suñ suñ solution mais kaa ñuy waxtaan soxna si dañoo toll jikko boo xam ne jamono boo xam ne jikko yi ràpp nañu te laabal leen dootul yomb